ginnaaw bi nga xam ne tàmbale nañ liggéey bi nga xam japp na naa ne ëpp na ñaari at ma ngi jokk ak soxna si e, mu may tawat manam ñak ndox bi nga xam mom moy li fi am yalla dogal nag e, manam bir mi ñi koy sogo door am benn jaamu yalla bu baax bo xam mo moo ci posam yag na jëflante ak ñun ci fànn bu melni manam def ay ten mu nek ten bo xam am nañ yaakar su fekkee bënna dina dina yombal ñi fi dëkk walu ndox kon mbir maa ngi nii yal na yàlla yombal li nga xam ne moom lañu muy ndox délégation bi nga xam ne yéen yéen ànd pour ñëw fii pour seeti ñu ñu ngi leen di dalal ñu ngi leen di tatagal di leen sant bu baax a baax li ngeen ñu indi gis nañ ko lu rëy a rëy la luñ xaajoo xaajo xoon la itam ndax fii wax dëgg dañoo manqué ndox lool am nañu surtout fii Saalum Diané waaye day dem ba toll instant yoo na ne une semaine duñu am ndox boobaa jigéen ñi ñooy jóg bàyyi seen yitte bàyyi seen liggéey dem ci teen bi di wuti ndox kon loolu ko la bu ko tàggalee moom loo def lu sant ko rek wax dëgg yàlla kontaan nañu bu baax a baax bëgg nañ ndollal ndollal li mu li mel ni école bi xale yi jàngee lu mel ni ay daara ak yooyu yëpp bëgg nañ ko ndax ay gune lañ yor ay doomi jullit lañ bëgg nañ fu ñu jàngee te kàttan li ko kon ku nga xam ne day jël xalalam di ko avertir te bëgg lu baax rek ñu ngi koy ñaan dimbal ki ñaan na moom day ñaan rek kii may moo dëggal waaye kon mom mi nga xamne mo mu jël alalam di ko ci nit ñi yalla yalla yokk ko yalla yalla yokk ko yalla yalla ful ko lepp lo dem xam def nako jaamu yalla yalla yalla nangul ko te ko yalla barkeel barkeel njabootam. li ma fukki gettu ma fi nek ok fofu la subi yaatu dina fa fanaan ci teen bi ben forage la Saloum Diané forage bi mën naa si fii daanaka day ñew tuti xel tuti bayyi ñi dem ci ten yi ba tay ñi ci ten yi fii moom lii si ndimbal rëy la te ñëpp gis nañ ko te jigéen ñi nekk fii xam nañ ko ndax ñooy dund loolu suñ koñ bi dale fii ba dale fii yëpp oñ benn teen boo xamee eh, robinet ngëcc na dañuy dugg bi dëkk bi lu sori sori dañuy dem uti uti ndox moo tax lii bi fi ñëwee ñu kontaan ci te it ñu wax ko ne ko ñaanal ndax doomu aadama moom soo ko xettalee mu ñaanal la ñu koy ñaanal addina alaxira yàlla fay ko lépp lu def ci lu baax fekk addina yokk addina alaxira kontaan nañ bu baax a baax a baax a baax ñëpp kontaan nañ waa jigéen ñi ci rawate ndax man mii da wax ak yéen doon dox teen bi depuis ñaari xat ba jëm ñetti xat li ma daj ci teen ak li ci samay wujj yi daj ak li sama pep cergo yi daj bëgguñ suñ goro yi daj ko moos am naa benn jamono boo xam ne teen bi fajar ba ca ngoon nga sa timis ma soog feesa feesal xëy nga def fóot ba jant bi so doo am ndox moo fóotee léegi ñu am da da muñ lool da muñ lool ba robinet ñëw ñu ne robinet dañ ci noppalu robinet yi ñëw gën a tee doy waar bu yéexee diggu guddi une heure guddi xam na ñoo xam ne dañoo tëdd ba une heure ñu jox dafaraatu ndox ci robinet xam nga ko loolu métti na loolu moo ñu dugal si ñaanam teen gannaaw loolu nag ñu ngi ñaanal ki nga xam ne moo ko joxe jox ko ay ndaw ñu da ko tasaare si réew mi ndaw yi ñu ngi leen di ñaanal yàlla yokk seen fan yokk seen maqam ki ko def moo xam mu fi moo xam ne fi yal na ko yàlla furaxal yëpp dundal ak njabootam naa toog ko. Chers donateur alhamdulillah, comme vous pouvez le voir ici, Euh, nous sommes dans le village de Kerlasin Khoureja à Kaolak. Alhamdulillah pour le lancement du, puits Aïna Bintou Ashura Amour. les travaux avancent très bien. Donc là, on est à une vingtaine de mètres. C'est bientôt l'eau va jaillir, Inch'Allah. On espère que l'eau va être, euh, de, bonne qualité et que euh, tous les villages vont en profiter. On prie qu'Allah accepte ce don de la part du donateur et que ça soit profitable pour, euh, pour lui déjà et aussi pour, euh, toute la population. C'est ma grande talent.